de sant là content aussi si mon premier titularisation si équipe bi vraiment en a trop euh, pour euh, démarrer match bi comme titulaire. c'était difficile moom métti woon trop métti woon trop mais bon football on ñun habitué nañ si si genre situation yi donc euh, je pense que nous ay professionnels lañ dañuy ñëw rek adapté vraiment c'était c'était c'était dur mais on a géré nañ ko quoi alhamdoulillah man vraiment aw ma si won pression certes premier match la euh, il fallait que ma ma ma ñëw ak tranquillité sérénité aussi montrer li ma li nga xamantene bobu légui mankay mankay maa donc euh, aw ma si won ben pression pression positive là si amoon wa loolu moo si des euh, continuer liggéey bi rek euh, pour moi continuité la rek man maa ngi fi euh, saa su ma sama coach soxlawee rek je suis présent pour monter woné sama bobu